3S Pro. ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen site internet seen lamb tv mbokk yi tey ñu amaan mbég te dalal kilifa gu mag si làmb kilifa goo xamante mi nii alaaji Ibrahima lañ koy wax borom Kajoor production yaakaar naa ne depuis ba nga xamee ne dem na siyaare ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee ba léegi yaakaar naa ne mondu làmb kontaan nañ ci moom trop lu tax dafa ñëw taxawal combat bi nga xam ne ay at a ngi nii ñu koy démarché mënul taxaw muy Mama Lamine ak xale bi nga xamante ne mooy double moteur bi mu taxawalee loolu nag ñu yaakaar ne foofu la yem te amoon na mbay guy gi ak armée yaakaar naa ne retour moom bi mu dellusee ci réew mi moom ndéwé na rek la andi macha allah léegi nag xam naa ne mbégteem safar gi la lépp rek mu indi la leen combat boo xam ne ñëpp a ko bëgg ñëpp a ko nam muy Ama Baldé Gris doo Balla Gaye dafa passé combat ak Gris Bordeaux demande sociale la woon Ama ak Gris mu ñëw taxawal combat bi ci loo xamante bi ni yàggut mu bett ñëpp nag Ama Baldé këram a ngi nële te stade baa ngi nii mosu fee bëre moom moo ko fi indi ñu koy félicité bu baax alaaj maa ngi lay nuyu baax di la siyaar salaamaaleykum Modou Anta maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di ko di nuyu say mbokk internet yëpp leen nuyu bu baax baax te di leen béggee di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa axlu làmb ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu promoteur yëpp di jël nuyoo bi di ko jiital di ko teg ci suñu loxo Papa Gasson ak président Pape Abdou Fall di nuyu Fallou Ndiaye bu baax borom Ndiaye production di nuyu président des jeunes amateurs Gorondoy di nuyu képp ku nekk ci axlu làmb ñoo ngi lay nuyu di nuyu jamaïcain ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu bu baax di nuyu staffu Kajoor production bi yëpp di jël nuyoo di ko teg ci suñu loxo papa Bourkhane Wade di nuyu ñëpp daal di ziar ñëpp di nuyu ahlu lamb di nuyu waa CNG Bira Sène ñoom ñëpp ak ay collaborateur am ñoo leen nuyu ñoom ñëpp daal. Ah, ana sa sëriñ ba sama xarit ba ke ñëwoon ci kii waaw kooku sama sëriñ la suma xarit la sëñ Fallou Mbacke mu sëñ moo sët sëñ bu sa Dieng foofu laa waroon tijjee may nuyu woy juróom bu góor mooy suma papa sama buntu ci sëriñ Touba muy sëñ Mourtala mu sëñ Modou Boussa Dieng maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox wàccuwaayam di ko ziar bu baax a baax di nuyu sama yaay soxna Abi Mbacke mu seen Dame Atta Mbacke di leen nuyu bu baax a baax te di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Alaaji Ibrahima combat bi nga taxawal lan moo tax kenn yëgu ko man dama jeg saay tey tey tey tey laa koy. waaw xam nga làmb moom comme ni ñu koy waxee rek du du du biir day xëy xëy rek wasin waaw te euh, olof dañu kuy yoddu saqat ku xam foo jamit doo àgg. ndax dafa am loo xam ne dañ ci am benn expérience bu ñu jàng tuuti ci làmb am na yenn combat yoo xam ne boo koy dox di ko bëgg da nga koy dox ci discrétion bu nit ñi yaakaaree ne gauche ngay jàdd nga jàdd droite tey loolu bokk na ci li tax tey ñu dox ko ci discrétion ñaari camp itam raisonnable Gris Bordeaux raisonnable Ama Baldé raisonnable Gris Bordeaux xam ne mooy président des lutteurs en activité tey ñu mu jiite ci ay nawleem am na suñu am te ne jël nañu ci xale yi pour may leen seen sens def grand contre comme moom mooy président des les en activité ci moom la war a njëkkee exemple boobu te loolu bokk na ci li tax mu jël combat bi tey ji ñu ciy santaat yàlla bu baax a baax doon làmb joo am ne du du sama làmb képp kuy yëngu ci làmb rek sa làmb la képp koo am ne làmb moo la tax a jóg avancement làmb moo la tax a jóg intérêt làmb moo la tax a jóg sa làmb la macha allah nga dugg si ci làmb ci kuréelu promoteur parce que yàgg nga si làmb le 9 janvier Ndiaye Tine ak Baye Mandione Junior première bi ñu la dekkee micro da nga ne dama bëgg a ñëw liggéey ci làmb lu kenn liggéeyut yaakaar naa boobu ba léegi yaa ngi ciy percé Gris Bordeaux ak Ama Baldé waxaale bi nan la demee woon. waaw foofu ñun mënuñu liggéey ci làmb lu kenn liggéeyul ndax ñu fi def tey lu fi suñu papa Gaston deful. ñu fi def tey lu fi suñu grand pape Abdou deful ñu fi def tey lu fi Petit Mbaye deful mënuñu fi def lu fi Luc Nicolaï deful. tey ñun ñoom ci seen i tànk la ñuy topp rek def li ñu war def comme li moo xam ne tey képp ku fi tëgg làmb tey jii war ngaa mën a yëkkati àllarba dem jox suñu père Gaston ndax tey moo tax ñun ñu xemmeem làmb ba mën a bëgg làmb ba mën a tëgg làmb tey jii ñun dañuy ñëw rek indi suñu contribution ci développement réew mi indi suñu contribution ci maanaam suñu culture ak li ñu moom muy suñu làmb ji nga xamante ne ñun ñoo ko moom tey loolu suñu sport national loolu kese la du leneen ñëw ñu fi pour xëccoo kenn ñëw ñu fi pour def naan dañuy def lu kenn deful waaw loolu macha allah yaakaar naa ne am na solo lool lool combat bi ban waa nga ko fas yéenee def. le 5 février incha allah. 5 février. ci yàlla. waxtaan nga ceeg eh, eh, kilifa. kilifa ban. ci ci biir. waaw le février lañ koy def bu soobee yàlla. incha allah rek moom lañ ko bëgg a def bu yàlla ñëw bu xam nga jàmm bi nag day bëgg. mais yàlla mooy dogal mais bu ànd ak dogalub yàlla ci kàttanu yàlla nañ ko def le 5 février incha allahu rabbi. lan la ci waa làmb mën a xaar. waaw làmb nañ ci xaar lépp rek yokkute feet mbégte ñu dégager stress ñu ñëw ñu kaf ree xam nga. làmb amaat beneen jéego bu mu sàqiwaat beneen xar kanam bu mu indiwaat nañ ci xaar loolu yëpp parce que bésu feet la bésu bégalante la quoi. Ama Baldé gëj a bëre 2017 lan moo tax nga andiwaat ko. waaw Ama Baldé gëj na bëre 2017 loolu du bëgg-bëggam du bëgg-bëgg amateur yi mais dogal suñu boroom la tey bu ko bëggee te yàlla bëgg ko du sotti yàlla mooy dogal ci jaamam lu ko neex tey moom it mun na ko avec philosophie xam ne tey ji temps bii la war a toog yàlla li mu def moo xam li tax mu def ko teg ci Ama Baldé lamb moo ko namm mm, du ay supporter am du ay pikin du ay kay làmb en principe làmb moo namm Ama Baldé kon tey jii bu làmb nammee Ama Baldé mhm. kon day jaadu ñi ñi bëgg làmb ñu indi leen Ama Baldé. Mhm. est-ce que xam nga combat bi nga tëgg dayoo bi mu toll ak ampleur bi mu toll yaakaar naa ne mosoo tëgg combat bu toll nii. waaw mën naan bi mooy suñu premier grand combat mais ñun dara du diis ci ñun parce que li tax dara du diis ci ñun mooy tey. jaam bi lépp looy dugg lu nekk rek dañ ci ànd ak ngëm-ngëm ànd ci ak benn principe te xam ne ragal du jam guy lépp ñun yàlla def na lu ñu suñu bët may rek suñu fit duñu ko xañ waaw ñun chaque jour ci logique bi man logique bi may dox mooy tey man lépp lu may dugg rek dama ciy am ngëm-ngëm man amu am danaa ci tiit wala lu ma ciy ragal ndax li tax du ma ci tiit du ma ci ragal mooy <laughs> leen na ko gën a metti muy dee dinañ ci jaar tey waruma mën a dugg ci dara di tiit di ragal wala di yox yox yi yàlla moo fi ne kenn nekku yàlla rek moo fi nekk te lu waay di yaakaar lu nekk yàlla la yaakaar li ñu war def nag mooy lépp lu ñu war def dinañ ko def en tant que en tant doomu aadama en tant que être humain ñu war def dinañ ko def après li des dañ koy bàyyi ci loxo yàlla suñu borom après dernière décision bi ci moom lay jógee moom xam na li gën ci ñun ak li gënul ci ñun lépp li gën ci ñun suñu borom dina ko tënk defañ ko defal ñu ko te lay gën nag yàlla na suñuy bëgg-bëgg macha allah xam naa ne dama lay yeewi nga dellu ci liggéey bi yan partenaire nga àndal wala ñan nga ci fas yéene àndal. waaw kooku nag incha allah rabi dinañ ci gën a mën a communiquer ci kanam ñu ñu ci war a àndal ak ñëpp ci partenariat yooyu comme dañuy soog a taxawal combat bi loolu après travail la bu ñu def ak encadrement bi ak SF technique bi parce que du man kese man la ñuy gis su boobaa nag après ñu mën ci avancer lu bëri daal incha allah. pare nga pour dem ci ñi nga xamante bi ni ay sponsor la ñu jàppale la wala soit aussi nga ubbi leen say pot pour ñu ñime la parce que événement bi nga tëgg. ubbil naa sponsor yëpp samay bunt sponsor yëpp laa ubbil samay bunt ñëpp ubbil naa la samay bunt te yaakaar naa ne combat bi ku bëgg visibilité boo ñëw ci combat bi di nga am visibilité kuy wër combat bu am visibilité boo ñëw ci Ama Ama Baldé Gris Bordeaux di nga am combat bu am visibilité mm. ndax saison deux mille vingt deux deux mille mm. amul combat bu ëpp dayo Ama bal Gris Bordeaux amul combat bu ko ëpp dayo laa la wax ni ci mm. saison bi mm. kon tey jii ku bëgg visibilité yaakaar naan que nga bëgg li ngay jaay mu jar boo ñëwee ci combat Ama bal Gris Bordeaux li ngay jaay dina jar ba ba wis ci kàttanu yàlla incha allahu rabbi incha allah macha allah am na solo ñu bàyyi la nga tàggoo waaw ñoo ngi tàggoo tàgg tàggatoo bu dul tàggoo di ziaraat ñëpp di santaan ñëpp di santaan mbokk ak lu làmb di sant sumay famille suma papa sumay rakk sumay yaay sumay nijaay sant suma sëriñ tey su ma amee suma soxna moom mooy suma taaw bu jigéen tey su ma mënee lii tey am na rôle bu rëy bu mu ci def sant sumay goro moo xam ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew du nuyu suma papa Assane yàlla yàlla wéral ay cëram guddal fanam ak suma yaay ndey jeey di jël nuyoo bi nag di ko teg ci doomam bu góor Yoro jàlloo mu teg ko ci ay loxo frère am yëpp ñoom Ousmane Diallo Bira Vieux Malick Papi su limee damay juum ñoom ñëpp di nuyu suma rakk yëpp nag suma doom bàyyi sama rakk yi nekk Casamance ñu nekk fii ñoom aji Wade Pullo Aida ñoom ñëpp Ngone Ndey Tuuti ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu sama famille di nuy sama dëkku cosaan sama village natal muy waa Pout maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu tund Kajoor bi ñëpp di leen seen doom daal ñëw na pour ci drapeau Kajoor képp kuy Kajoor Kajoor jàppal ne bés bi sa bés la làmb ji sa làmb la yaa ko moom di tàllal samay loxo nag ñu ñaanal mu bu baax a baax a baax mbébét bi ñu bëgg fi ñu bëgg a àgg ñu àgg fa ci jàmm ak salaam ñu ñaanal ñu nag bu baax a baax a baax baax a baax a baax a baax a baax ñu ñaanal ñu bu baax maa ngi nuyu waa Casamance yëpp waa ñaamoon maa ngi nuyu bu baax maa ngi nuyu waa Casamance bu baax waa ñaamoon maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu waa Medina Serigne mbay Saloum ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu waa Kolda di leen ziar di leen tàllal loxo te xam ne seen doom mu ngi nii mi tàllal loxo di nuyu tund kajoor bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu waa Diofior Jifeer Jifir dëkk yooyu yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax te xam ne seen doom mi ngi leen di tàllal loxo ñëw na maa ngi nii daal dénkaat naa leen sama bopp daal. dégg naa fi la jaajëf borom kaala gi El Hadj Ibrahima Kajoor production ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko jox wàccuwaayam aha bisimilah ñu koy jox wàccuwaayam bu baax wax dëgg yàlla ci disponibilité bi yaakaar naa ne amutoon temps lool waaye ñun lu ñu bëgg si làmb rek dañu koy nangul nekk nit koo xamante bi ni wax dëgg yàlla waxi démbam moo nekk waxu tayam saa bu ma ko soxlaa rek day yomb si man lool. di ko jëfalaat bu baax a baax mbokk yi di leen wax ne leen combat bu neex taxaw na nag Ama Baldé ak Gris Bordeaux Gris Bordeaux yàgg naa dugg Pikine Ama Baldé naa dugg Fass yaakaar naa ne combat la boo xam ne combat jànq la parce que lamb ju mës a am bu amee rek combat jànq la Abdou Tall bu xarañ loo maa ngi lay siyaare bu baax a baax Ibrahima Kanté tarkindaa bi mbokam ndayam sàkkal maa ngi lay siyaare bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu Aliou borom Ramdan Couture mbokam ndayam Balla Gaye numéro 2 Keba bu Yankaw point Balla Gaye numéro 2 maa ngi lay siyaare bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jox dig daje ba beneen yoon ci seen lamb TV Kalidou jërëjëf Thank you.